vocal du groupe Teranga Pape Diagne un artiste d'une dimension exceptionnelle man di jëkkul nag maa nga ca biir fekk leen ma foofu sama xarit plaît ñu jox votre confrère Malick alias Lopez mu dugal euh, ki nga xamante ni mooy le à la personne du président Maguette Thiam. voilà ñu bëri xam ma daa man xaw n'est-ce pas lenn rek laa à la fraternité vous êtes d'accord avec moi à la fraternité. <laughs> tout à fait. voilà donc Doudou Mbaye vous l'avez dit ah euh, gëm sa bopp. baka baka bugaan di door dañ ñu woon du yegg si fii mais dafa gëm boppam moo tax mu yegg si fii et réellement li ñu mën a constater mooy dañuy gis ni dans chaque commune le douze communes que compte désormais le département de Pikine ñoom ngay tàccu leen Maguette bu baax le président du mouvement Yamadé et kenn du wax ni kenn xamu ko à Nord parce que nag dañ ko xam ci création d'emploi dañ ko xam ci initiative développement local dañu ko xam ci équité ak légalité moo waral le mouvement yamale yamale ñëpp la def moom la ñuy dugal le président Maguette Tandoum est-ce qu'il est vous voyez, chers amis, internet en ce moment sur les rues de Burkina, Burkina Nord, on est en train de voir le cortège du, du, du, du président du mouvement Yamalais dans la coalition comme le peuple, M. Bougangé Dani, impérativement. Comme vous, comme, comme vous le voyez sur les images, il y a les scooters, il y a les tankourans, il y a du tout, a du tout, il y a du tout, comme on peut le, on C'est le président du mouvement Yamalé, euh, Michel Maguette Tiandoum, dans la coalition de Gumsa Popou de Bougan Gaydani, qui se trouve tout juste devant nous pour faire son entrée. dans, dans, dans, dans cette magnifique spectacle organisé aujourd'hui pour faire sa propre déclaration pour secourir la communauté, plus particulièrement la population de Blikine Nord, comme je vous dis. Mais il y a pas mal, il y a pas mal de gens, il y a pas mal de Comme vous le voyez, tout est en train de se terminer comme ça se passe actuellement. Bravo, bravo, bravo, bravo. coloniale qui se trouve en haut de la voiture. Impérativement, comme vous le voyez. c'est notre président en, personne qui fait son entrée dans cette euh, magnifique véhicule de 4x4 qu'il a. Euh, M. Maguette Tchadoum, le président de la Camalais, dans la coalition de la Ligue Donc le voilà. <laughs> Merci, ça c'est mon plaisir à moi. <laughs> Un très bel cortège qui, qui vient d'entrer sur les routes de Pékin Nord. Euh... ma jël sama président di grand waaye ma jël sama président kii sama président bopp la man kese monsieur Maguette Thiandoum avec euh, Maguette Thiandoum comme vous le voyez ay jàmbar ay deux années. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. On se rend compte de beaucoup de ces questions-là qui travaillent surtout l'ancienne, l'ensemble qui était là. Donc c'est fort quand même pas de déjeuner. Lors toutes les façons que nous pensons avoir, nous avons pu penser que nous avions et vraiment avec l'appui de, de la coalition de la nous avons pensé que les enfants de Kouinoua, de Kouinoua, habitants dans ce cadre. Par la relève, et nous sommes porter notre c'est vraiment l'intérêt de travailler pour la commune, parce que nous avons l'habitude de travailler pour la commune. Aujourd'hui, en le faisant, nous faisons vraiment rendre hommage à toutes ces communautés, à toutes ces populations qui ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup souffert et qui ont beaucoup aussi travaillé, mais qui n'ont pas eu la satisfaction. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comme changement au niveau de cette commune Bon, en fait, euh, vous savez, nous sommes dans une perspective très grande. Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition et nous avons aussi beaucoup de candidats qui sont présents euh, à, à, à, mon côté. Et tout notre intérêt, c'est vraiment le développement de la commune. Chez le maire Daounia Ndiaye, qui est citoyen, que nous souhaitons qu'il porte la magistrature. Donc, c'est pour cela que cette ville de Nous savons tout ce qu'il a pu faire. Donc, tout notre intérêt, c'est de se regrouper ensemble et arriver à montrer à la population qu'aujourd'hui il y a vraiment des personnes qui sont pour seul euh, intérêt, c'est le développement de et c'est le développement de la ville. Nous puissions s'associer ensemble et que nous puissions arriver à changer Parce que l'image de Pikine, c'est donner une nouvelle image c'est donner de l'espoir à la population. Quelle appréciation faites-vous euh, de la gestion de la, du dit post-standard euh, actuel euh, de la commune de Pikine L'appréciation que nous en faisons, c'est vraiment une appréciation négative. Parce que il faut dire que le maire, le maire Abedjala a été ici pendant plusieurs années. Et pendant toutes ces années, nous avons vu qu'il n'y a pas de grand développement, il n'y a pas de grand changement ici dans la commune. Maintenant, c'est dommage même que c'est lui qui a choisi la portée euh, la masculinité Cela montre tout le désamour, cela montre tout le désintérêt donc, du parti au pouvoir qui accompagne aujourd'hui donc la ville de Tivaouane vient accompagner donc la Donc aujourd'hui, nous nous sommes là pour montrer à tous ces gens que nous avons la capacité, nous avons la possibilité et nous avons les moyens donc, de changer notre améliorer Donc, tout ça. Alors, peut-être qu'on ne peut pas parler de ça, parler de ça. Vous savez, euh, M. Gaïdani, c'est quand même. Euh, un entrepreneur. Et aujourd'hui, moi, je pense que ce qui se passe, ça arrive à l'instant C'est vrai qu'il y a quand même une échelle de l'État mais je pense qu'il y a une solution di wax rek ne tey jii ñu ngi fi ànd ak wax dëgg yàlla samay naataangoo yeneen communes yi. muy commune yi nga xam ne ñoo nekk ci Pikine que ñoom ñëpp ñu nekk ay candidats maire seen bopp donc li leen intéressé mooy tey jii gëm sa bopp dafa nekk une réalité au Sénégal surtout au niveau de Pikine donc tout notre intérêt moo jëm mooy ci élection locale bi ñu ginnaaw Pikine Nord vraiment la ville de Pikine ñu jël ko jël ko jël ko comme que ñu changé l'image de Pikine et l'image de la ville de Pikine ki nekk ci bopp bi ci kaw mën na ko ñun ñii fi nekk mën nañ ko ki nga xam ne moom lañ jàpp ne war na mën a fi nekkaat maire de la ville monsieur Daouda Ndiaye moom moom donc moo tax rafet nañ njort bi buñ ci amee ak li nga xam ne mooy population bi moom yëpp yàlla moom ñu gis suñu benn naataango laajoon léegi ne la moo tax nañ ñu taboo ñu jiite ko xam nga xam nga tey jii euh, Pikine Nord euh, dafa yàgg si sonn dafa yàgg sonn ci maire bi nga xam ne moo fi nekkoon bi maire am jara te ñu jël ñu sampat ko tey mais suñu gis-gis mooy kii fi bàyyee mooy wane ne dañu bëgg a gën a lor askan donc pour bañ ñu lor askan moo tax ñun ñi nga xam ne ay doomu ci jëm ñi nga xam ne na ne lu bëri gëm nañ ko def nañ ko fi benn ndomboy tànk dafa jaadu tey ñu ñu lëkkaloo dajaloo wax daan ba fexe fexe ba jëlee fi maire bi teg fi nag bu gën teg fi bu gën moom mooy li nga xam ne mën ci bi moom la ñu jéem a jëmbal moo tax incha allah dinañ ci jéem lépp lu ñu mën ba li nga xam ne mooy maire bi fi tegwaat nekk ci ñun wala mu nekk man mii di Pikine Nord incha allah ba yàlla may ñu ñu changé dimension Pikine Nord ñu changé dimension ñu changé le développement. alors ban laaj bi ci acharnement bi ñu def ci wér bu baax bi ak ci wér ko. waaw mais xam nga loolu moom wax dëgg yàlla nee naa affaire entrepreneur bu nekk. liggéey bi moo ànd ak loolu mais lépp dañ koy réglé ci biir waxtaan moo tax rafet nañ ci jot ni solution bi nekk am ci lu gën a gaaw état du Sénégal nag moom nekk nekk dafa war a jàppale entrepreneur man chef d'entreprise la te bu doon sama sago donc état bi jàppale ñu jàppale ki nga xam ne je pense que ñoo sax jàpp nañ ci benn waxtaan bu ñu dugg te foofu ay doomu aadama ñu koy liggéey doomu Sénégalais la te war nañ leen mën a jàppale jërëjëf bés bi lu waral teewaay bi ndax dama laa gis nga toog suñu jigéen suñu présidente Mina waaw. moom moom moo waral teewaay bi. ndeysaan. ma invité dama bàyyi lépp ñëw ndax moom lu ma nekk ma nga ca. ndeysaan. Ah, kon moom mu nekk boo ma ci rek ma naa ko bàyyi mhm. la mu war a la macha allah. Mhm. Euh, nga dégg investiture bi nga xam ni moom mi ngi ci ak mouvement bi nga xam ne mi ngi ci nekk muy mouvement yamale ñu nekk fii ci Pikine Nord di jàppale ndaw ñi di jàppale jeunesse bi tey jii yow ngay jeune moom muy jeune ban gis-gis nga am lool ci ak ban jàngat nga am ci liggéey bi nga xam ne moom koy liggéey. waaw mais kontaan rek xam la mais wax dëgg yàlla lu baax rek bu ci loolu amee dañ jug ci loolu ne dañ koy def lu ñu ngi jéem ñu ngi koy def. kon bana xam ne yaakaar nañ ne bala ngaa dem dina dégg sa baat. képp ku fi taxaw Pikine namm na la. Pikine Pikine daf ci ko bés bu yóbbu. yow da ngay doomu boo dellusee fii moom bu mu dellu na ca mbooy mbooy ga. Sénégal jëm kanam. ñenn ñi bëggoon nañu ñëw mënuñu ñëw. sama baay Ablaye Ndiaye ne déplacement daf koy nekk waaye nag defe naa man li fi taxaw war naa doy xel xale yi nekk fii kontaan naa ci ñoom gis naa ni ngay jàppale yal na la yàlla jàppale li ngay suur yal na ko yàlla sottil jàmm ci barke de quartier suñu papa merci merci Mamadou Diop dégg nañu vraiment doléances yi. Euh, je vous que wax am solo Maguette Thiandoum moi qui suis de l'inspection d'académie le lycée Mame Yelli Badiane mooy la première lycée. waaw mais. voilà. ñu jàppee baadoo la ñun maa ngi concept bourse la fi indi mais ñoo indi pour jox nit xaalis nga lekk suba mu jeex loolu moo war a dakk ñun ñëpp a ko war a bañ ñun lan la ñu jàppee dañuy lekk suba mu jeex seen bureau gagné di lekk seen xaalis ñoom ak say mbokk bu bu jotee ñu yeb ci ay jox leen 1000 francs 2000 3000 nañ bañ loolu waaye. waaye ñun du ñu mën a génn esclavage boobu moo fi war a jeex te màgget loolu lañ def suñu bopp bi ñu doon ay ko wàccee fépp fuñ ma koy wax ay yoroon luñ joxe de xam lan lañ yor wax nañu conscientiser leen koo xam ne dañuy dimbali sa doom am liggéey yow ñu dimbali la nga nekk ci leneen loo xam ne day gën a yokk sa productivité ñu nekk ñu avancé suñu kër yi avancé suñu papa yi avancé suñu yaay avancé te le bon choix comme ni ma koy waxee mooy monsieur Thiandoum de développement plus de vingt ans mu nekk ci développement communautaire yi. bëgg ñu may ko loxo la présence euh, de la communauté Mora la présence de votre président. les électeurs ce sont nos les électeurs ce sont les jeunes les électeurs ce sont les acteurs de développement les électeurs ce sont les acteurs culturels et il en fait partie wala euh, gaan Moïse Moïse à toi ah ñu salaamaaleykum vive Maguette Thiandoum tàccu leen Maguette Thiandoum waay merci beaucoup waaw waaw euh, euh, euh, euh. moo tax affaire yi dafa xat mais ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi ñaanal Maguette Thiandoum vraiment ci kaw ci kanam ak SFM merci beaucoup monsieur l'animateur merci merci merci di ko jàppale ci lépp li nga xamante ni mi ngi koy def Abdou Lahad Ndiaye c'est également un acteur de développement Lahad à toi la parole voilà à vous la tutoyer parce que tu es mon jeune frère Lahad Lahad a ngi noonu ñu tàcc ko bu baax a baax a baax a baax rawatina mbokku Pikine Nord ngeen may ñu tuuti rek ak déglu ñu bëgg a wax ak am solo yoo xamante ni

ma ne kon maire bi nga Pikine yore na ko neuf ans def ci liggéey bu am solo man mën naa ci. sama xarit père Camara ñu koy wax Younusa Camara moo nekk Djidah Thiaroye Kaw. Ibrahima Ndiaye moo nekk mu jëlee nag mooy seen om seen mbokk seen Maguette Thiandoum candidat au niveau de la commune de Goudiri. ngeen tàcc ko bu baax Maguette Thiandoum. ngeen tàcc ko bu merci. bi ma nuyoo mbooloo mi ba pare ñoo ngi ñëw suñu nuyoo communauté Mor bi nga xam ne seen président mi ngi fii toog di nuyu communauté Fulaadu bi nga xam ne Balde moo lay représenté ñuy nuyu waa Pikine Nord yëpp ñu di sant ci bu Bougane parce que moo fi ñëw mais liggéey bi ni mu demee moo tax ma ñëw teewal ko tey kontaan nañu trop ci mobilisation bi ngeen def fii au niveau de Pikine Nord. lii ñu fi gis dal na sanu xel yaakaar naa ne bu ñu yàlla démbalee ba ñu egg le 23 janvier 2022 seen doom bi nekk seen gannaaw di ngeen ko jël teg ko ci mairie bëri. vraiment Maguette Tandoum dama ñëw Awa Cissé boole maag moom muy nit ku dal nit ku am njëriñ ci nit ñi nit nag bu ñuy seet dañuy seet ku am njëriñ nit ñi ñu ànd ak moom comme yàlla def ne boole nañu ak moom fas nañu ne ànd ak moom ci Pikine liggéey. ba incha allah ba li ñuy ñaan yàlla yàlla defal ñu ko te yaakaar naa bu soobee yàlla ku gis mobilisation bi xam ne Pikine Nord jox la ñu cër màggat te dinañ ko jàppale ci biir ak ci biti man nag yaakaar naa ma présenté sama bopp Pikine ku ma xamul aussi dégg nga sama tur. bu leer yaakaar naa bu ma defoon lu ñaaw ci Pikine. dootu ma am taxawaat fii naan damay xëccowaat mairie Pikine te bu sooba yàlla dina ànd ak mairie màggat ak góor yi ma àndal ñu delluwaat ci mairie Pikine jëlaat ko ci loxo APR bi bu sooba yàlla vraiment pour ba ñu guddal comme guddi na sant nañ leen gërëm nañ leen te di wax ji nag du ay waxi kese parce que janvier bu sooba yàlla wax ji daf ko jaratul ñu leen seen carte ngeen booteel la goirin coalition gëm sa bopp bi nga xam ne président Bougane moo ko jiitee vraiment ñu ngeen fal seen doom fii ci Pikine Nord ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum billaay bàkk naa la jiit naa la ñaari yoon ak a bëgg sëñ Babacar Sy Magatoo Thiandoum hmm. man de dàkk naa la jiit naa la kuréel noon yaa ba si Seydinaa Limaamu Laay borom aji boy day laay amuñu wàllu gànnaaw yaa bu nekk ci picc mu mag lay doxalee ak bëgg Seydi Babacar ma ñëw waaw waaw taalibe Cheikh la borom mu may noonu garmi baa ngi noonu góor mi na tu faal ana naari faal naari la góor naari faal juróom lay dee baay màgget waaye fula fayda borom a ko moom man de bàkk naa la yaa bëgg Seydina Limaamu ko en gestion des organisations c'est aussi le secrétaire exécutif de Afriane Maga Thiandoum aussi c'est le coordinateur national du réseau POPDEV Il est aussi secrétaire général de la coalition des organisations de la société civile. Maguette Tiandoubé est aussi le directeur de l'entreprise Bonergie. Il est aussi le responsable financier de Ecopen. Maguette Tiandoubé il est aussi membre de AS Pigil Pigil Management. donc ku xool lii nga xam ne kii CV bi CV bu riche la ku xool li nga xam ne kii ku ñu la ku ñu jëloon euh, la donc ñuy joxe sama collègue euh, mu introduire Maguette Thiam. waaw da ngaa ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp man nag bi ma duggee fii sama yaram dafa daw xam nga dooloo sama yaram lii mbooloo mi toogee fii ba léegi di xaar maa ngi topp waaye sama maam nee na am ko ca xam ko moo gën am ko ca xamoo ko ndax soo ko amee ca xamoo ko boo ko ñàkkee doo xam ne nga ñàkk mooy lan góor saa ngi nii borom juddu baa ngi nii ki dawul bàyyi ay bokkam ki dawul bàyyi yaayam ki dawul bàyyi Pikine Nord ba pare def rëy. Sénégal mouvement bu di dégg nga ko waaye ci Maguette Thiandoum rek ngay déggee mouvement yamale ba pare bu dim lim def démb looloo gën a dawloo sama yaram di waaj a def sa ouverture mouvement wàcce kaamil jàng alxuraan ñu bare nga Casamance waaye yow alxuraan nga gëm Seydi Hadji Malick ngay waaje moom ngay wàllee bëkk rek dara aram la ku ma càmbañ pendak paate pendak bëgguma pendak xaar yàlla bëggu pen pigi noor seen doom yi nii dafa guddi rek te li duuf ci nag xajul ci cin yi waaye Maguette Thiandoum am ko yemut ak bañ koo am. dëgg la ñun ñii ñoo ko xam ñun ñu dëkk Sacré-Cœur 3. Mm-hmm. ñoo ko xam ñun ñu nekk ci réew mi ay géwél lañu. du ñu nettali waaye du ñu yëg mu siiw. amuñu téeméeri at waaye du ñu téeméeri baas. xam la yemul ak bañ laa xam am na yemul ak bañ laa am yal na la yàlla jàppale yal la yàlla sàmm yal la yàlla aal ba lii nga bëgg nga am ko ni nga ko bëggee. waaye nag maa ngi nii sa benn xarit sama jigéen naar ñu koy wax Mina jàmbaari fàkk tëdd guddeeg bëccëg suba ngoon fi day wax ak man ni ma peex Maguette Thiandoum rek laa am yow Maguette amu ci yow ñaar benn rek la ci kon nag Pikine Naar yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla fi yàlla def xéewal dafa fi mu yéen ñi xamul woon mosul woon ñu teewul. ñu ngi lu tubaab ñu ngi lu tubaab jaay. réew mi euh, yàlla def na ne euh, wax dëgg yàlla xew bu ni mel nii ak langue bu ni mel yaakaar naa ne moo ngi doog am fii surtout ci tant bi moo tax damay am mbégte vraiment di sant yàlla euh, di gërëm waa Pikine Nord ñi nga xam ne ñoom ñoo déplacé wu ñëw tey jii fii pour surtout supporter li nga xam ne moom mooy daje bi nga xam ne moom la def tey muy suñu investiture mais balaa may tàmbali damay gërëm damay gërëm ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi wax dëgg yàlla euh, tey jii lii mënoon naa bañ a am waaye bu amee dafa fekk ne xale yi yamale yii ak surtout équipe yamale bi ñoom ñoo taxaw depuis bi ñu créé yamale ñu taxaw pour que au moins lépp loo xam ne euh, jëm na ci wàllu askan bi lépp loo xam ne jëm na ci wàllu gox bi ñoom ñu dugal ci seen loxo moo tax dama leen di gërëm di leen féliciter di leen encourager parce que dama ne ndaw ndaw moom day euh, bu loxoom setee mën naa bokke gi mag mais ñi seen loxo daa set ba pare ñu am xalaat yu set moo tax ma leen di gërëm di leen sant et di leen féliciter di leen encourager euh, di féliciter aussi di remercier la présence de monsieur le maire ici muy le maire Daour Niang Ndiaye ah xanaa eh, am mbégte rek ndax ku am maire bu mel ni moom mu def fii juróom-ñeenti at eh, def fi li fi def fii ci Pikine je pense que bu ñëwee fii teew mbégte la pour ñun mbégte la aussi pour la population de Pikine Nord ñu xam ne tey jii ginnaaw eh, li nga xam ne mooy liggéey bi ñu liggéey dina am maire bu kilifa koo xam ne nekk na fi député ñu yaakaar ne war nañ ko mën a fal fii muy ne département de Pikine di gërëm aussi ci biir remerciement bi. Euh, muy euh, soxna Awa euh, Bougane Cissé xam naa ne moom wax dëgg yàlla jigéen ju mën góor la waaw ndax lu nekk def na ko pour que mën a ànd yàgg na ma soññ sax ne ma màgget jógal waaw yàgg na ma wax ne ma màgget jógal mais jàpp naa ne tey jii wax dëgg yàlla teewaayam ak mbir mi ngi fi def donc dina dina am solo trop ci biir remerciement yi tamit. Euh, du ma ci génne ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci liggéey bi depuis boobu ba léegi euh, muy euh, vraiment ñoo xam ne bu du woon ñoom tey ji làmbaay ñaaw parce que ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñooy wàcc ci kër gi ñoom ñooy dem fépp pour surtout ni ñu xam li nga xam ne moom mooy yemale du ma ci bàyyi muy Ismaïla Diallo nekk sama jarbaat muy Aline Ngom te xam ne moom it moom ci groupe bi di Cheikh Tidiane Sow surtout Cheikh moom xaw ma anamu. ma nga bëre naa ne moom moom ci organisation bi. taw bi ren waaw bëgg rek lépp réussir moo tax xam naa ne euh, bu paree dina tëdd ay semaine balaa muy jógaat moo tax dañ koy ñaanal yàlla may ko jàmm yàlla may ko wér ak kattan. Euh, ci loolu euh, di beral loxo aussi Mina Minatu Fall jigéen bu mën góor waaw wax dëgg yàlla moom dafa wér moom it lambay ñaaw ndax taxaw na ci taxaw bu rafet. Euh, li mu war a def def na ko te xoolu ci lenn xaaru ci lenn donc moo tax dañ koy remercier di ko féliciter et di remercier aussi surtout seen waa kër ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci biir yamale ak ci jàppale bi nga xam ne ñoo ngi jàppale donc loolu yëpp bu ma ko waxee dama bàyyiwul kenn euh, jéewuma fàttewuma kenn tey ji ci ci remerciement yi ndax gis naa ci biir mbooloo mi ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, sama coloré ak ñoom sama ànd ak ñoom ànd bu yàgg la euh, muy Mbaye Ndiaye ma ci ginnaaw tey ji dëkk fii bi yàlla def ñu nekk coloré boo xam ne kóllëre yàgg la euh, muy sama xarit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw muy sama ñi nga xam ne ñoom laay liggéey ndool tey ji mooy ay employé yi mais ñëpp ñëw nañu pour jàppale pour wane que ne tey jii liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo la euh, di ci biir remerciement yi aussi di remercier euh, surtout sama naataango yi nga xam ne moom mooy waa Yewwi Askan bi donc je pense que am na ñoo fi gisoon tout à l'heure donc ak Biralo donc Matar Gueye donc vraiment ñi nga xam ne ñëpp euh, ñëw nañu fii euh, di leen remercier ci seen teewaay euh, di remercier aussi li nga xam ne mooy les imams imam yi ak surtout oustaz yi moo tax oustaz Birane wax dëgg yàlla waroon na fi jël kaddu dama kaa gisul ci mbooloo mi mais moom ñu fi wax année waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy oustaz yi dañ ne woon dañuy jël kàddu donc firndeel euh, jël kàddu wax ci si turu li nga xam ne mooy ustaas yi pour wane suñu jàppale su li nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy liggéey. Euh, délégué de quartier aussi bi nga xam ne moom mooy Baara Lay ak surtout euh, délégué de quartier Diop vraiment di leen remercier di leen gërëm ci seen teewaay ndax yéen askan bi yéen a yore doxal bi moo tax lépp loo xam ne wax dëgg yàlla def leen ko. donc danañ ciy gën di remercier aussi ci biir remerciement yi les communautés yi fi teew muy communauté Fulaadu ak communauté Moor yi ndax gis nañ seen taxawaay euh, gis nañ seen jàppale moo tax vraiment dañuy am mbégte ci seen teewaay fii tey ñu fi teew wax dëgg yàlla ay ay ay ay ay ay star rek lañu moo tax dama bëggoon suñu ñaari mbër yi ñoom euh, muy Ziza ak surtout euh, Jara Jara man ngeen tàccul ma leen parce que ñun ñoom la ñuy parce que ay ay ndaw lañu nekk ay mbër mais vraiment ñu tey ji ñëw ne dañ ñuy jàppale ci suñu liggéey bi ndax teraanga bu ñu ak ñoom moo tax wax dëgg yàlla euh, dañ leen ni dañ leen ni gërëm euh, di leen félicité. bi félicitation bi aussi moo xam ne wax dëgg yàlla muy euh, sama naataangoo yi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi. muy Cheikhouna Ndiaye di Ibou Ndianor parce que depuis bi ñu tàmbalee liggéey ba léegi ñoo ci terrain bi lu nekk def nañ ko euh, jigéen ñi Daaru Xudóos ñoo ngi leen di gërëm waa Aïnoumane 2 ñoo ngi leen di remercier donc waa Sakaba ñoo ngi leen di remercier donc waa Colobane Lansar donc vraiment amuñu seen pays gis nañ seen taxawaay gis nañ seen jàppale gis nañ aussi ni ngeen bëggee ñu ñu réussir mais tey jii bu ma jëwee taxaw ne damay laaj baat askan bi dafa fekk ne baatu askan bi dama cee am cër te war naa ko laaj ni ko jeneen ñi laajee yàgg na ñu def fi wàllu développement depuis presque plus de vingt six ans ñoo ngi travaillé jëm ci wàllu ci wàllu développement. ak waa école neuf Thiandoum. ak waa école neuf waa Daaru Khoudoss ñëpp ñoo ngi leen di remercier mais euh, euh, depuis vingt six ans ñoo ngi évoluer ci wàllu développement te li ñu intéressé mooy doxal suñu gox dama ne tante bi euh, angal bi tànt naa fi tànt bu dul tante Guinée. ndax activité bu rëy organ mu yàgg nañ ko fi organiser te lépp ci wàllu développement moo ko ci woon donc tey jii buñ ñëwee ne dañuy politique dafa fekk ne ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di politique surtout ki fi nekk di maire li fi liggéey daf ñoo doyul rax ci dolli ñi nga xam ne tamit jàpp nañ ne dañoo bëgg a jëli maire bi ñenn ci ñoom dañoo jàpp ne seen doxalin des na moo te ñun bu ñu taxawee li ñu bëgg yàlla mën nañu ko may ba ñu changer li nga xam ne moom mooy commune bi te commune Pikine Nord pour que ñu changé ko am nañ ci xalaat am nañ ci xam-xam euh, commune Pikine Nord am nañ ci xalaat ci doxal bi am nañ xalaat ci liggéey bi te am nañ xalaat tamit ci lu ko développé. sànq rek ñoo ngi may wax euh, liggéey bu nga xam ne suñu partenaires yi déjà yi fi ñëw gis ngeen ci ginnaaw ay partenaires français ñoo fi nekk ñuy liggéey ak ñoom. Euh, ñu nekk fi stage depuis presque un an ñu war ko fi nekk di liggéey surtout na la ñuy def ba dimbali askan bi dimbali gox bi te pourtant ay xale tamit yoo xam ne ay xale sénégalais ñoom la ñuy jël war leen yóbbu France te lépp ci yóbbu bi ci suñu liggéey moo ñu ko may donc pour wane que ne ñun nous organisation boo xam ne dañuy may chance les jeunes ndax waajur yi ku leen bëgg a dimbali da leen di jàppale ci seen i doom ndax waajur yi sonn nañu. te ku leen dimbali lañ bëgg pour que seen xale yi am liggéey wala seen xale yi ñu am emploi wala boog ñu am loo xam ne mën nañ leen ci dimbali loolu moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg mooy fexe ba commune bi nga muy Pikine Nord muy fexe bi nga xam ne mooy le département de Pikine tey jii ñu xale yi am ay opportunité d'emploi yoo xam ne ay opportunité d'emploi yu leer na fexe ba képp koo xam ne tey jii yaa ngi nekk Pikine nga mën a am accès ci yenn information yoo xam ne dina la dimbali ba au loo mën a jotee nga jote ko ndax nit ki kat boo ko bëggee dimbali da ngay fexe ba xool lan mooy jafe-jafeem bu génne ko ci jafe-jafe yi mais bu fekkee ne da ngay ñëw rek euh, euh, xool li nga am nga jox ko dama ne bu subaat da ngay ñëwaat nga joxaat ko mais nit ki boo ko bëggee dimbali da ngay xool luy jafe-jafeem nga xam ne boo ko dimbalee ki da leer ne kii bu ëllëgee keneen du ñëwaat di ko jéem a dimbali. ndax jaar na fa ba pare donc ñun loolu mooy suñu tànk loolu mooy suñu mébét suñu bëgg-bëgg yëpp ñoo ngi ko def ci naka la ñuy def ba Pikine Nord ba naka la ñuy def ba Pikine le département de Pikine tey jii ñëpp képp koo xam ne ndaw nga képp koo xam ne jigéen nga képp koo xam ne artisan nga sa liggéey ñu dimbali la ci ba au moins nga jógee ci euh, ci ci ci ci lu ndaw loo doon am am lu ëpp loolu te loolu moo ñu tax a jóg loolu moo tax tey jii ñu ànd ci ñun ak waa gëm sa bopp. yaakaar ne élection yi di ñëw muy élection locale yi dinañ ci samp suñu ndënd donc woo leen ci ngeen leen ci ngeen jàppale ñu ci incha allah ba ñu ànd ci liggéey ci liggéey bu mucc donc vraiment maa ngi gërëm di sant bi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ci biir sant bi euh, fàttewuma aussi sama naataango Gana Faye muy un responsable de banque tey jii moom mu bàyyi lépp ñëw daal ne day ñëw ànd ak ñun ci biir liggéey bi donc pour wan leen ne fii ay responsable rek ñoom ñoo fi teew ay responsable rek. parce que li leen yitteel mooy naka la ñuy def ba doxal gox bi li leen yitteel mooy naka la ñuy def ba changer l'image de Pikine li leen yitteel parce que ñoom ñëpp ku ci nekk am nga sa liggéey am nga sa teranga macha allah mais buñ ñëwee ba dugal suñu loxo ci mbir parce que dañoo jàpp ne liggéey bi dafa war a doon liggéey bu ñu lëkkale ñun ñëpp suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu sonn ñu jàppale leen ba au moins seen am am mën a yokk xale yi nga xam ne amuñu xëy ñu jàppale leen ba au moins seen xëy mën a mën a mën a antu donc loolu moom mooy suñu mébét te loolu lañ bëgg moo tax une activité comme ça dañ ko defoon rek pour wane eh, ne dugg nañ ci mbir mi eh, yéen ñëpp ngeen xamee ko noonu incha allah bu yàlla defee eh, ñu passé li nga xam ne mooy. Euh, au dépôt des listes ba candidature yi ñu confirmer ko vous allez voir que ne dinañ wàcc ci terrain bi dinañ waxtaan ak communauté yi dinañ dugg ci kër yi dinañ wàcc ci mbedd mi donc pour gën leen xamal suñu programme wax lan lañ na ma def ci Pikine Nord ak lan ma lañ na ma def Pikine donc di remercier vraiment l'ensemble des de candidats des des des des douze communes de Pikine yi nga xam ne ñoo fi teewoon tey te li leen loolu yëpp mooy ñu présente leen population bi. ñu xam ne gëm sa bopp tey jii dafa jóg pour vraiment changer l'image de Pikine avec le maire Daoud Ndiaye ma bëgg ngeen tàcc loolu euh, vraiment di di leen gërëm ci loolu te ci biir liggéey bi tamit euh, xam naa ne dinañ def lépp lu ñu mën ba tey jii suñu marché bi nga xam ne mooy marché zinc euh, ñun ñii mu nekk marché bi gën a yaatu ci biir Pikine wax dëgg yàlla ñi fa nekk di ay jigéen di di di di daw di daanu pour que vraiment di daan seen doole ñu jàppale leen xool nañ lañ mën a ba lépp loo xam ne lu ñu mën a dimbali ñu dimbali leen ci te ci biir loolu aussi tamit duñu fàtte ASC muy ASC Espoir di ASC Yeewu ASC Zeng les ASC yi nga xam ne ñoo nekk ci biir quartier bi am nañ programme bu yaatu bu jëm ci ñoom keroog rek maa ngi ci doon waxtaan ak ñenn ma ne leen subvention cinq cent mille dimbaliwu leen parce que bu nee tamit ngeen laajaat même subvention ASC yi boo leen bëggee dimbali da nga jël subvention bu takku nga jox leen lu mel ni cinq millions wala lu ëpp loolu boole leen ci ay liggéey pour ko mas nga ma leen dimbali ba ëllëgee doot ñu la sax laaj leneen mais koy ñëw koo xam ne ay budget wala ay soxlaam dafa dafa dafa dafa bari nga jël tuuti jox ko jàpp naa ne lool du dimbal donc loolu yëpp am nañ ci ay xalaat am nañ ci ay gëstu yoo xam ne incha allah dinañ ko liggéey bu ñu ko defee aussi dina doon dimbal ci ñun moo tax balaa may tënk di terminer vraiment ci biir remerciement rek laay def parce que fii mënu ma fi def discours politique ndax fii sama koñ laa mënu ma fee politique ndax nit ñi xam nañ ma li ma fiy def def naa ko donc dañuy ñëwoon rek woo mbooloo mi pour yëgal leen suñu tàmbaleeb liggéey moo tax wax dëgg yàlla ñu xamee ko noonu euh, di di di wax ne nag euh, ñoo ngi woo di tàllal loxo euh, waa askan bi ñoo ngi woo di tàllal loxo waa gox bi. ñoo ngi woo di tàllal loxo euh, jeunes yi ñoo ngi woo di tàllal loxo jigéen ñi ñoo ngi woo di tàllal loxo suñu imaam yi ak suñu religieux yi di leen xamal ne bis ni tey euh, man mi di Maguette Thiandoum di seen doom donc fas naa yéene dugg fii ci kan euh, euh, euh, dugg fii politique donc pour changer li nga xam ne moo xew ci département bi ak li nga xam ne moo xew ci commune bi te fas nañ ci yéen liggéey am ci yéen bu rafet jàpp ne buñ ko liggéeyee ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci àndal muy gox bi incha allah dinañ améliorer les conditions de vie de Pikine donc maa ngi gërëm vraiment ñëpp di leen sant xam naa ni guddi na kits yi nga xam ne dañ ko defoon muy ay kits scolaires pour jox ko ñi nga xam ne moom mooy xale yi. dañ ko def pour dimbali surtout euh, sunu waa waa gox bi aussi tamit soutenir li nga xam ne mooy école yi parce que jàng moom dafa doon farata te jàng sox la ñuy promouvoir ci lépp lu ñuy mënti def moo tax incha allah lépp lu mu ci mënti amee di leen continuer di leen joxaat euh, kaddu parce que am nañ ay bureau yoo xam ne moo ngi nekk ci rond point Dominique bi te foofu la ñuy nekk suba ba ngoon jot di leen ci woo euh, xam naa ne kit yi bu fekkee ne tamit continuer woon ko terminer incha allah foofu di leen ko fa ñi nga xam ne ñoom ñoo jotul woon seen kit bu ñu indee seen i bon donc loolu laa ci amoon ci ay kàddu di ko ci sànni di ko ci yëkkati di gërëm ñëpp ci seen teewaay et je remercie vraiment toute l'assistance ici. Et je vraiment remercie aussi mes braves dames euh, qui sont là derrière de nos stagiaires qui sont là depuis toute la journée et qui sont venues spécialement ici pour montrer quand toute la, sympathie euh, qu'elles ont, au moins du travail que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'avoir euh, ces jeunes et ces fils ici présents. Et je pense que le fait d'avoir Euh, la pertinence, la participation de, de, ces jeunes filles françaises ici à Pékin montre exactement quel est l'intérêt et l'importance que nous voulons et que nous développons ici au niveau de Pékin. En tout cas, nous sommes de tout cœur et je remercie beaucoup mon cher ami Mali, qui, comme il l'a dit, c'est depuis presque plus d'une dizaine d'années que nous sommes ensemble et nous travaillons, nous nous connaissons beaucoup. man mënu ma fi nekk di wax sama expérience ak samay samay yu bari ñoom ñoo ko ñoom ñoo gën a mën a wax moo tax incha allah damay def rek di ay remerciements rek laay def di gërëm la sam des personnes ku ma na xam ne moom sama xel. Euh, dëgg yàlla dinaa ko tudd. Ziza ak Jaraaf yooyu ñoom it ñu ngi lay remercier ah. nee nañ nee nañ bala ngay wàcc fii foog ñu wax ko. waaw bëri vraiment ñu ngi lay remercier ñoom Ziza. ah gars yi vraiment amuñu sa fay ah. jërëjëf jërëjëf vraiment euh, pour man loolu laa ay champion lañ ce sont des champions ce champion nos champions on doit ci suñuy champion ndax ñoom ñoo mën a riiral koñ bi ñoo ñu mën a kontaanloo ñoo ñu mën a aussi naqarloo parce que bu ñu bu ñu amee bu ñu amee mbégte ñu am mbégte bu ñu amee naqar ñu am naqar ndax ay jeunes lañ euh, toll ci daan seen doole moo tax lépp lu ñu leen dimbalee dañ leen ko war a jox. Moi, vraiment, je vous encourage et je vous félicite. Et vous allez voir, on vous accompagnera. Inch'Allah, dinañ leen gën a jàppale euh, ci lu bari ci sunu ànd liggéey ci du doon sax affaire politique parce que ñun politique taxu ñëw dugg ci mbir bu ñu jàppale ni duñ ko jàppale ndax politique dañ ko jàppale ndax suñu devoir la ñu jàppale nit ñi donc loolu loolu laa ci doon bëgg euh, euh, di di di remercier aussi la presse waaw waaw waaw waaw di leen remercier di leen féliciter parce que surtout euh, la presse locale qui est là euh, Samir euh, wax dëgg yàlla ak waa waa waa en direct de Pikine waa waa waa Pikine TV donc vraiment ñëpp ñi nga xam ne teew nañ ak les jeunes là de de de ma terrain de production wala mais en tout cas les je les les jeunes et les jeunes de réseau mm-hmm. Pop Dev je sais qu'ils sont là c'est eux tout le travail de la conception là moo tax chapeau chapeau bas à vous je sais que euh, vous me êtes euh, vous m'êtes redevable à beaucoup de choses mais incha allah li ma li leen war rek ngeen di def euh, maa ngi leen ci gërëm waa Ngalam TV aussi ils sont là ils ont été très présents donc vraiment di di remercier ñooñu ñëpp di leen sant di leen gërëm di di leen féliciter di féliciter les artistes di leen remercier ci présent suñu communauté naar yi moom macha allah xam naa ne yëf yi neex na euh, neex na bari na euh, mais dañ koy dañ koy di yoon comme lu neex du jeex dañ koy dagg ba beneen yoon rek xam naa ne ñu mën ko tóoli tool loolu laa ci doon am seen i kàddu macha allah. merci Maguette. ñu ngi lay ñu ngi lay remercier Terra. Oui. Diagne le chouchou de Xombal moo wootee ñu ne Pape Diagne maa la ko c'est l'inconditionnel des mélomanes à Dakar et environ lead vocal du groupe Teranga fu ñu jëm ñu ne ca théâtre national Daniel Sorano attention mesdames et messieurs rendez-vous est pris pour le décembre à partir de 19h l'entrée est fixée à 5000 VIP 10 000 doté d'une belle voix pleine de sensations et d'âme Pape Diagne bu Sorano le décembre Bawol du fa des Ndakaaru